am mbégte ànd ak yéen fii ci seen sit euh, Dakar Net seen émission bi leen di wax feeñ tey nag ñu ngi fii ci marché Dior war a waxtaanee ak waa marché bi situation bi nga xamante ne moom la ñuy dund boobu ba tey muy situation bii lay xew ci euh, D-Média tey nag ñu ñëw xool askan wi lan mooy ci seen seen xalaat ñu dem. bi noo de. maa ngi sant bu si jàmm. maa ngi si jàmm. yaa fi nga yëg nga situation bi nga xam ne moo xew ci réew si yëg naa ko comme ni ko Sénégalais bi yëgee yow lan moo ci sa xalaat. waaw di ko naqarlu comme sénégalais yëpp rek ndax tamit Bougane defe naa bu jugee di xeex pour réew bi fu mu nekk nii yaakaar naa xeexalatul boppam ndax am na teraangam ba noppi tey jii bu toogoon mun na dund ba njabootam dund ci li mu yoon macha allah kon yaakaar naa bu génnee di xeex dafay xeex ndax askan bi ndax xeexatul ndax intérêt personnel bi ndax boo xoolee li mu am ci employé par rapport ak dëkk bi ni ñuy semee man jàpp naa dañ ko doon dooleel mais waruñu ko atténuer ñàkk waruñu koy xeex ci yu demee noonu ndax ñi ngi wax démb rek maa ngi seetaan télé ama comme ni ko Sénégal yëpp di dundee kooku di expliqué ne télé bi rek am na plus de 500 employés par rapport ak rajo bi waaw tey yu mel noonu tey ñooñu dañ leen war a dooleel ndax ñu nekk ay nit yoo xamante ne référence lañ te bokk na ñu ngi jàpp ci développement dëkk bi kon ñooñu waruñu leen néewal doole daal comme nu mu méttee ñëpp la fa méttee daal vraiment démb fii laa toog di ko naqarlu comme ni ko sama gars yi mm, waxee nii dama noonu tey jii bu ñu xëyee pour génn wàcc si tari bi damay wàcc comme ñëpp ndax affaire bi vraiment dafa ma métti sama xalaat de mooy ku jiite ñëpp daal li nga war a def mooy nga yemale ñëpp ah, di jàppale ñëpp daal bañ a doole kenn ndax ñiy def ñii ñëpp dañuy góorgóorlu ah, di am ay employé xam nga war na bu ko ah, ñu jàppale latéral te am askan wi loolu daal laa ci quoi. li xalaat mooy su ma sañoon du am ndax ak Seek FM ñëpp askan ñoo ko bokk. Bougane day dóor waar gëm sa bopp. man da fekkoon ma gëm sama bopp mais dama gën a gëm sama bopp ndax Bougane da jàppale askanam bu Bougane ngay tubaat fakal la macha allah li mu yor musuma may 100 francs su ma daje moom dinaa xam ne nag kii mooy Bougane musuma may 100 francs musuma dem foofu mais gis naa ni gëm na boppam mi ngi liggéey mi ngi dóor waar te su ko neexoon mu na li ma yor macha allah mën naa ci dund maag sama njaboot ak samay soxna ak samay bokk mais jàppale askanam toog ci ñoom di dóor waar di lim di dimbale ñi nga xam ni nag xamu leen sax man nee naa ne léegi mayuma 100 francs dama gëm sama bopp di dóor waar waaye Bougane su ma sañoon Macky Sall ak gouvernement am ñu bàyyi Bougane mu liggéey man dama bëggoon Macky Sall ba ku ko laal damay xuloo ak moom mais li muy defax dëgg yàlla su ma sañoon du am daw ma ci Bougane xaw ma Bougane télé rek laa koy gis mais bët moom kenn mënu bët moom kenn mënu tere mu gis mu xool nopp ak dégg dañuy déglu dañuy gis gis Bougane Bougane di di dimbale askanam di waxtaan ak ñoom di leen jàppale ku ñëw mu déglu ak dal lu mu am ci war wërsëgam dimbale leen di jàpp ni koy liggéeyee tamit ku mel ne Ahmed Aïdara Mansour Diop Mantoulaye ñu bokk Cambérène Guédiawaye nag laa juddoo fa laa yaroo mais Mantoulaye ñu bokk Cambérène mais tubaar fakkal la macha allah gëm nañ seen bopp te ñu ngi jàppale Bougane maa ngi ñaan yàlla yàlla bàyyi leen ak Bougane te Bougane li mu nekk mu dund ba génn ci man na ku ko bëgg laa barki Cheikh Cheikh Cheikhul Khadim ku bëgg bugaan la nee naa la xaw ma ko mooy ma mosuma may ñaar fukk damay dóor waar mais day liggéey di jàppale askanam bëgg réewam xam fi muy teg tànkam xam tamit li muy wax kenn musul wax musul wax ba pare ñoo dégg la bugaan wax musul am kon nañ ko jàppale bàyyi ko mu liggéey mu dóor waar jàppale askanam man lu rek lay ñaan nañ bàyyi bugaan mu liggéey li fi mu teg tànkam foofu la gëm sa bopp ku nekk da nga war a gëm sa bopp ku nekk da nga war dóor waar gëm sa bopp ci loolu Bougane di man fi la ma fekk man maa ko mag téeméer junni yoon mais ba tey maa ngi dóor waar kon nañ bàyyi Bougane mu liggéey dóor waar xam fi muy teg tànkam jàppale ñu koy liggéeyal jàppale askanam ndax Bougane ci la nekk kontaan naa nag fekk fekk dama du ma mais nag kontaan naa ci li ngeen ma fekk non man de rafetlu moo ko personnellement man rafetlu moo ko ndax bu dul dara tamit am na ñu fay liggéey ñoo xam ay père de famille lañu tey jii jàpp naa ne Bougane même bu waroon a jox état bi xaalis wala mu war a kii xaalis war nañ ko mën a soutenir Euh, jàppale ko ñu xool nuñ ko waxtaanee man moom laa loolu laa gis ndax euh, doomu aadama bu génne moyenam def ko ci réewam ay nit di ci liggéey di ci seen bopp kooku bul xool intérêt boogaan kese da xool intérêt peuple bi nga xam ñi ci gannaawam ak ñiy liggéey ak ñi nga xam ne ni xibaar yi ñu bëgg dégg am na ñoo xam ne mënuñ faa joti te D-Média mi leen ko jotal yi kon état bu mu xool ne moom dong intérêt na xool intérêt ñu ne si gannaawam bu baax a baax a baax man nag ànduma bugaan ànduma ak état ñëpp ku mu ci mën doon damay wax li nga xam ne moom a arrangé mais buñ xool été bugaan dong dong dong nañ xool ñu ciy liggéey ci ginnaaw dañ ko jàppale te yàlla tax buñ ko tëjee dafañ ko bugaan li mu am am ko am na këram am na oto yu muy dawal ñan lañ ko def moo ñu liggéey kon nañ xoolaat seen bopp bu baax a baax a baax nu mu gën a ñu xam ne ñu bokk senegal loolu daal mooy sama xalaat. waaw mais Bougane mënoon na si réew di contre gouvernement te tanga yore am ay société si biir réew mi loolu mënta ne. bu dee nit nga nga yor nekk ci réew yor ay société waroo contre gouvernement waxuma waxuma na nga nga da ngay tibb tànk fu Macky Sall teg tànk mu dafa dafa tànk ma day ma day tibb tànk état kenn du xeex moom na def ndànk xam ne àdduna jarul lii politique am loo xam ne politique jaru ko bu mu eta état boo nekkee si nguur yor yor say bien ànd la nguur ga boo bëggee jàmm ma de lu laa gis def ni alaa Youssou Ndour boo nekkee si nguur daal yor say société si biir réew ma bëgg say société jëm jëm kanam non man de du ma ko digal muy xeex gouvernement na ànd gouvernement buggee jàmmam man loolu loolu laa parce que instant yi am na ñu liggéey ci DMA ñoo xam ne ay père de famille leen ay mère de famille leen foofu ñoom fa leen yaakaaree seen seen dund ci ci ci eh, bugaan googu fële fa ko yaakaaree moo moom moo tax bugaan na teg affaire bi ci yoon lu mu war a fay na ko fay si réew mi ñun si ñu dund ñun ñii lu ñu jaay nii suñu table yi dañuy fay euh, jude di fay plante kon bugaan bu nee réew mi dafa war a fay comme lii ni ñuy fay dee bëgg lu muy wax mu moom bëgg réew mi bu muy wax mu ci moom na fay lu mu war a fay rek Sénégal jëm kanam man de noonu laa ko gisee. rek laay seetaan bi ma ko déggee lu ma metti laa ci am bugaan dama koo bëgg ci sama xol barke yonent bi séeri moom mi dani boobu dama koo bëgg te lu baax rek lay am bu soobee yàlla. yow daal yaa ngi koy métti. maa ngi koy métti lu bu baax te li yàlla yàlla na dañ ak jàmm man loolu laay ñaan suba gu ma jullee fajar loolu laay ñaan. yaay booy yow daal def sama doom. yow daal d'accord nga Bougane mi dugg ci langue politique. Euh, ah Bougane damaa bëgg mu doon président nga ni d'accord nga <laughs> président laa koy ñaanal yàlla na ko doon ci darajay Mouhamed. waaw D-Media bi muy nekk euh, lu ñuy ñaawlu nag. lu ñuy ñaawlu lool ndax xam nga réew réew jaante doole baaw fi réew senegal dafa nekk réew boo xamante ne képp koo xam ne opposant nga rek tooñ nga te loolu lu ñaaw la si démocratie ñun suñ démocratie war naa romb fii. war nañ mën a am ay médias yoo xam dañuy opposé wu loolu day gën a defar réew rek tey gën a dundal démocratie xam nga redressement fiscal koo xamante da ngay fay ñu toog ba si yàgg na la na nga doon faye naka te baaxul nii ngay fayee mais loolu mun nga cee daanal ku la neex loi yooyu du loi yoo xam ne day doxal nit day doxal réew nit ki di fay nga ne ko redressement fiscal léegi yow na nga doon fayee baaxul léegi nii nga waroon fayee léegi depuis at bi ak at bi lañ lay booleel loolu ba kañ. bu la neexee nga dem def ko Sidi Lamine suba nga dem def ko euh, Youssou Ndour beneen jour nga ñëw def ko waa de <clears throat> waa DTV ba kañ. waa yow yaakaaroon ne Bougane en tant que euh, kii président groupe de presse war na euh, dugg ci langue politique bi comme ni ñu xamee ne presse bi moom dañoo war a neutre cest à dañoo war a yem di joxe information yi bàyyi politiciens yi ak seen politique looloo ci xalaat. waaw si politique pour man par rapport ak président groupe de presse am na différent ndax boo xoolee groupe de moom moom moom entreprise bi mais liggéeyut fa. en même temps poste bu nekk am na ku ko occupé am na directeur programme am na directeur de kii nangam nangam xam nga kon tey bu wàccee ci terrain bi pour man loolu leneen la loolu parti la par rapport ak entreprise bi pour man war nañ ko nangu te politique yaakaar naa day xeexal réewam pour lu yokk réewam ak pour a yelef bi nga xamante ni mu rànk ci réew mi mu mu mu taxaw mën ci xeex fam ci fam li mu ci mën daal. waaw ba tey loolu itam waaw loolu am na solo waaw bu ko defee boo xamee yaa ngi yëngatu si politique daal man pour man itam si ñaari côté yëpp laay wax war na moytu lu bëree bëri ak seet loo xam ne lii nii luy doxal euh, société la daal xam nga li ma la wax. xam nga ku nekk si euh, gouvernement moom man pour man neexul a xeexal itam daal na nga fexe daal nga def noo xam ne nii da nga si mën a génn euh, garder sa employé après bu ko defee sa emploi sa société mën a continuer nga seet ni nga doxalee sa politique. waaw ba xam ne daal da nga si mën a génn daal waaw man man itam sama xalaat daal si loolu daal moom si côté boobu noonu laa ko gisee quoi. waaw li ma koy wax mooy dañ koy ñaan mooy suñu njiitu réew mooy suñu président bu amee jàmm dañuy am jàmm bu amee safaan dañuy am safaan dañ koy ñaan lu man lépp lu may ñaan sama àddina jàmm lay ñaan bu Macky Sall na may Macky Macky bugaan jàmm mu am jàmm Sénégal am jàmm ñëpp am jàmm kenn bëggul xeex kenn bëggul toj kenn buggul nekk ci mbedd di yàq alal jàmbur. ndax da ngay yow da ngay toog sa toogaay bokkoo ci ñu jóge fen ñu defee seen manifestation yi ñëw yàqal la te yow bokkoo ci te lii lépp boo continuer leneen mën naa am yàlla bu mu am yàlla bu mu am ñu ngi ñaan nag kilifa diine ku ci mën a wax na jox jàmm dellusiwaat ndax loolu lañ bëgg. non man gisuma mën noonu xam nga tax gis nga àdduna loo mënut a gis ku jee dajee baax bugaan gis na ne dafa war a dem ci politique bi war naa mën a dem loolu bu amut réew mi du neex du baax tey Macky Sall mii ba ba ba Abdoulaye Wade dàqee dafa ñëw dëggal boppam ba yàlla may ko lu mu kii Bougane war naa mën a ñëw dëggal boppam yàlla may ko lu mu kii loo mëntu gis daal nañ ko waxtaanee mu rafet man loolu laa gis ah tey jii nii bu fekkee loolu kaa kenn du université dëkk bi tey soo bëgg a nekk euh, contre état ñu fexeel la loolu bu fekkee loolu kay kaa kon kenn kenn dëkk bi du baax ñëpp dañ jëm ci état te liggéey balaa mën a baax dëgg-dëgg am concurrence man commerçant la mais tey balaa ma mën a gën a kontaan dëgg-dëgg damay am bagage sama morom su boobaa damay gën a kontaan di gën a am euh, force di liggéey man loolu laa gis quoi. léegi yow comme mbir mi li am am na ba pare euh, te doomu Sénégal ñoo liggéey foofu noonu euh, lan ngay digal digal Bougane ba euh, ñi cay liggéey duñ ca lool. mais ñi liggéey moom léegi Bougane mënuñ koo digal dara ndax man sama xalaat bu gàtt lay wax quoi état bi ci boobu non fekkee mën naa fay na fay bu mëntu fay tamit ñu dem waxtaanee ko xool nañ koy dagge daggee par année wala par ay temps ba ñëpp gis seen bopp man daal loolu laa loolu laay ñaan nañ xam ne réew mi ñoo ko bokk. nañ xam ne réew mi Bougane li muy am am na ko loolu nañ ko nit xam bu baax a baax a baax instant toon nii moom amatul li muy ñàkk parce que mënoo créer ay employés yoo xam ne ñu bëree bëree bëree bëri la ñiy liggéey te yow amoo sa fond am nga sa fond boo xam ne te même bu gars yi perte woon yow mënoo perte parce que da nga am loo dundee da nga am loo lekk mais ana ñi ci liggéey ci gannaaw da nga xam ne euh, presse ñiy feeñ ñoo ci gën a ndaw ñiy feeñ ñoo ci gën a ndaw kon ñi ci gannaaw ñëpp léegi nan la ñuy def ñu si gannaaw man gis naa ne état moo doon gis euh, Bougane di liggéey wala Youssou Ndour wala keneen amul doole état bi jàppale ko soutenir ko jox ko dara na ko doxalal man loolu laa gis. Sénégal tey bu fekkoon dañoo ñëw gis koo xam ne dafa am doole tuuti ñu jàppale ko dooleel ko mu créé yeneen employé ñooñu liggéey ñu koy def bu ñu ko defee ay un an deux ans trois ans pauvre bi ñuy wax ñu bëree bëree bëri day wàññeeku mais te fekkee ma dama am sama xaalis di liggéey tey te am na noo xam su ma ànd ak état rek dañ may euh, kidnappé. keneen di ko def keneen di ko kon kon réew mi du dox nañ bàyyi gars yi ñi libre liggéey ku bëgg a liggéey nañ ko jàppale mu liggéey ku bëgg ko dëkk bi li fi li fi li fi métti yëpp kenn mënu koo wax ñun ñoo ngi ne ay commerçant lañ lépp la gars yi yokku exemple doon conteneur ñëw di fay ay dégg naa ay 10 euh, millions gaa ngi koy fay ko ay lopp léegi 14 millions ay 17 millions loolu loolu ci lañ war a wax li ñu war a waxuñ ko nañuy jàppale ñun peuple bi bëgg liggéey bëgg ñu wàññi ñi taxi yi wàññi ñi lépp ñi liggéey ñun xooluñ dara eta Ah, sonn dara ci état ñun lu ñu bëgg taxi nañu ko wàññi ñi liggéey. moom d'accorduma ci presse day tëddee njaaxaanaay xibaar yi wér te wóor leen wax mais des médias booy déglu seen xibaar sax da ngay xam ne ñii dañaa far trop trop trop trop parce que jeune journal defee ay commentaire ay commentaire quatre personnes toog ñu ñu doxal benn élément ñu toog commentaire ci waxtu lu leen neex te loolu du yoon journaliste du noonu éthique et déwénte la si leen wax na affaire bi jaar ci yoon man noonu laa gisee waa léegi ku toll ne Bougane nekk ci réew mi ak euh, li mu gis ci réew mi euh, opposant yëpp euh, dund nañ situation yu ak problème ak état bi est-ce que ku mel ni Bougane waru woon a préparer boppam fay ay impôt wam ak tax ba affaire bi bañ a yegg si. waaw nga nit soo bëggee xeex ma xeex moom bul nangu benn fay bu mu lay yewee lépp loo ko yoreel wala lépp loo ko war a fay lépp fu fe fu mu war a jaar pour pour pour xeex la rek bunt ba fatt ko maanaam lépp loo ko yoreel rek jëm koo fay ba ba léegi du la yewee yewee dara. mais léegi nag boo nekkee ci ci nguur nekk si réew mi wa war a fay say impôt fayoo ko gouvernement bi bëgg a xeex moom moom itam day xeex ak yow te gouvernement kenn du xeex ak moom nguur nguur nguur maanaam yàlla moo dindi si nguuram jox Macky Sall kon boo bëggee xeex moom da ngay sonal bopp rek Macky Sall fekk yàlla jëlee ko fi kenn mënu ko fee jëlee jusqu'à 2024 kon patron de presse yi neen teg affaire bi ci yoon mi buggaa nag keneen na keneen na ci yem bu lépp lu ñu war a fay neen ko fay yàlla tax pour réew mi dund ci sax nit ñi am ne xam ne réew mi nit fi nekk ñu ngi fay impôt nit ñi mën see jëriñu mais ne ci réew fayoo ba pare te la takk sa rajo yi di ngal-ngale di wax loolu c'est pas sûr du du yoon jaaduwul bugaan lu muy def jaaduwul man maa ko wax jaaduwul na fay lu mu war a fay te yàlla tax. waaw loolu moom xam nga préparé wul boppam na boppam de waaye ndog moom bu ñëwee day ñëw rek yow mii doom xamoo ci sa bopp dara ndog moom buy ñëw day ñëw rek waaye yal na ko yàlla teggil loolu jërëjëf doom. léegi yow looy wax ah, ci Macky dara. man daal bugaan bëgg naa ko yal na ko yàlla def président ci darajay Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam. c'est pas interdit diine terew ko loi terew ko ana problème bi saa dañu yor benn njiiti réew boo xamante ne moom bëggul ko opposé wu moom bi mu njëkkee toog lan la wax day détruire opposition bi mais loolu loolu ban loolu projet la loolu. détruire opposition loolu projet la nañ dem si démocratie ñu dundal réew réew dañuy def loo xam da kay dundal mais du ñu wut luy rey réew ku xeex ak man <clears throat> ku taxaw ne li may def àndoo ci ma rey la wala ma tëj la wala ma éliminer la ana Karim Wade éliminer nañ ko parce que opposant la xalifa Sall nuñ ko def Ousmane Sonko la ñuy jéem wutalaat pexe léegi bu mënuñu si Ousmane Sonko ñuy wuti si Bougane encore mais ba kañ. yow lan ngay wax euh, waa nguur gi pour ñu mën a dimbale waa presse bi foofu noonu pour ñu reprendre seen liggéey normalement ñu xool nañ la ñuy négocier. no li ma leen di wax foofu noonu mooy ñu jàppale presse bi jàppale père de famille ak mère de famille fa nekk ci ni mu gën a gaawee nag te ñuy dooleel doomi réew yi nga xam ne ñu ngi jël seen xaalis di ko investir mi di créer ay emploi nga xam ne fii sama bëri na trop ku nekk xam na ne réew mi doxut. ñi nga xamante ni ay étranger bu ñëwee fii di installer seen kii ñu leen di xajal di leen accompagner bu ñu ko defee doomu réew mi. wallahi kenn dootu fi jël ay gaal ak di agression beeg yëpp dina wàññeeku ci dëkk bi ndax yëpp ñàkk liggéey bi la te ku ne xam na ne sénégalais yi dañoo am jom bëgg a tere waajur bëgg a seen njaboot moo tax ñuy dugg ci yenn yi rek mais du seen jikko ndax am na ay exemplaire yoo xamante ni di nga jomba def yenn yi mais des fois tamit ñu koy waxee gor bu góoru ci dara du mën a gore. waa li ma koy digal mooy léegi euh, mu seet daal li nga xam ne am na importance pour employé mi quoi léegi bu ko defee. mu seet li nga xam ne mooy waru garam mu def ko ni mu ko war a defee bu ko defee emploi ñu mën a continuer si situation ndax bokkuñu si politique. waaw léegi itam ñi emploi itam ñoom ñu def seen liggéey ñoom itam bañ ci da affaire politique politique daal nañ ko ci affaire politiciens yi man laa gis quoi def seen liggéey ndax mu waree bu ko defee ñoom ñu ñëpp ñu nekk si jàmm quoi waaw. léegi ban njëkk ngay ñaan nguur gi sax pour mu euh, oyofal loxoom pour euh, affaire bi xaw a kii tuuti ñu mën a def ay négociation pour ku nekk retrouver la à waaw nguur gi itam njëkk bi mooy léegi daal ah, ñu baal ko rek bu fekkee xam nga doomu aadama dina juum mun na tooñ bu ko defee bu fekkee dafa juum ah ñu ko rek xaar beneen yoon bu ko defee bu defaatee lu ñu mel ah ñu seet naka la ñuy régler situation yi waaye bu ñu ko mënee baal daal ba mu delluwaat situation yi ñi ñi jotaat seen liggéey nañ ko waree nañ ko doon liggéeyee loolu pour man am na solo daal. lu ma koy conseillé daal mooy lépp lu mu yoreel état bi na ko fay mais état bi tamit bu mu lii. mu ngay teg loo xam ne nekkul yoon waaw ku nekk nen teg affaire si yoon daal ku ne lu nga war a fay nga fay ko ñu bañ la ñu bañ la bund xatal ndax ànd ak ñoom rek ñu bund xatal loolu loolu du yoon bu daal lu ma koy digal lépp lu mu am lépp lépp lu mu war a fay na ko fay te mu yoon parce que ñu ne si ginnaaw ñoo tax. léegi yaay booy boo koy digal lan nga yan nga koy digal. lan laa koy digaluma ko dara ndax lii ndog la ndog moom faaw mu am ndax kuy def lu baax moom yokkal sa loxo rek la ñuy wax te mu ngi koy def. yow daal 100 pour 100 laa. fii ba fii ma toog nii bugaan laa. non xam nga booy booy booy boo nekkee ku la doole aussi amul benn côté bu mun a pare ku la ëpp doole bu li xeexee yow sax da ngay def da lay sot te fekk ni dalaa laa mën ku la doole dangay mën a nekk ci li nga nekk toog say garde wóolu sa bopp donc mais bu lay songit dangay xam ne song na la doo ci mën lu dul baare say loxo rek di xool fu fu muy mujjee mais Macky Sall kenn mënul xeex moom moo yor réew mi yor am na bi yor police yor gendarmerie lan nga mën ci moom yor lan nga mën ci moom jeex na te lii tamit dawanu réew kanam. mais comme instant bi lii am lii am am na ba pare euh, lan ngay lan ngay digal Bougane pour euh, mu mën a jàppale ñi nga xam ne tamit ñoom ñoo fay liggéey ñu bañ a loru parce que ñoom tamit politique waa li may li may digal Bougane daal ginnaaw yàlla wa man yatawakkal ala llaahi fa huwa hasbuhu na wàkkirlu si yàlla te gëm yàlla te xam ne réew mi yëpp ñu si ginnaawam liñ ci mën nag mooy di ci wax ñu fee dem di sànni xeer wala di reyante wax di ñaawlu li muy def la ba pare bàyyi ko ci loxo yàlla yàlla na ko yàlla leeralal yoon bi yàlla jàppale ko ba tolof tolof fi mu génn si ndax emploi de jeunes yi ñuy wax defe naa ni Bougane kenn ëpp koy emploi kon war naa mën a xool ñi si ginnaaw Bougane wala sax muy xool Bougane rek mais intérêt personnel moo baaxul gis nga boo gëmee sa bopp si intérêt donc doo gis sax njariñ li si ginnaaw yow sa bopp rek ngay gis waaw. lan ngay wax gouvernement bi pour ñu euh, kii affaire yi. waaw gouvernement mooy mooy li mu leen wax rek nañu yemale te yoon yonent yàlla euh, astafurlah euh, na moo leen ëppoon doole fop fop fop mais ki ko fa jëlee mooy liir ga ga jaaroon biir dex ba ba wàcc biir pale ba kooku ko fa jëlee dama bëgg mag saal muy delloo xelam ci loolu Firawna dara taw ko woon fan la mujje ñëpp xam nañ na soraale loolu nag te xam ne nguur goo gis day jeex